ami et fidèle internaute yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel à internet yi fi nekk yëpp gannaaw ba nga xamante suñu borom jagleel na ko deux fois de suite mu dem fi nga xamante ni moo di États-Unis ñibbisi waat ak ay trophée waaye ñaari trophée la indaale benn bi xarit la benn bi mu nekk entrepreneur moom Viviane Chidid Ndour gannaaw ba nga xamante suñu borom defal na la teranga euh, ñi ngi lay félicité bu baax baax encore une fois di la ñaanal trophée yi la jëkk ci barke Seydouna Mohamed tata bi bi ñi ngi lay siyaar a a baax a Euh, di leen remercier ci teewaay bi yéen li may wax rek saa su nekk fu ma nekk ngeen fekk ma fa te yéen a ngi def liggéey bu am solo ndax euh, lépp lu nga xamante ni moom la nit ñi di gis wala ñu koy yëg yéen a ngi ciy def liggéey bu am solo yéen a ngi am taxawaay bu bu rafet kon maa ngi kontaan di nuyu sénégalais yëpp nag. bàyyiwuma kenn mag ak ndaw góor ak jigéen sama fans yi di nuyu ñëpp di nuyu Jolof bond di nuyu sama staff di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. kontaan ci yéen. incha mhm. mais trophée bii nga xamante ni moom nga jël best music vidéo 2024 euh, dañu gis nga def ci featuring ak xale yi mu mel ni vidéo bi bokk na ci vidéo bi gën a neex ñi nga xamante ni ñoo di àdduna bi. Mhm. waaw waaw bii nag moom mooy xarit. Mhm. Euh, boobu lañ ma jox. mu nekk euh, plaisir ci man nag ma kontaan ci voilà liggéey bi rafet na di ci féliciter encore Pâques ak équipe bi mu àndal. Euh, ak euh, sama sama sama staff di leen wax ne vraiment kontaan naa euh, di remercier aussi ñoom Baxaaw ak ci ñëpp suma limee damay juum ndax ñoom ñëpp a jàpp ci liggéey bi ba mu mun a egsi fii voilà. Euh, voilà donc euh, gis nañ tam ne am na beneen deuxième trophée tam boo xam ne indi nga ko muy meilleur entrepreneur euh, donc loolu ñun dañ ciy am fierté pourquoi parce que entreprendre dañu toll foo xam ne ñun jeunesse bi dañu soxla koo xamante ne dafay dox ci loolu comme ça mu mën a créer ay emploi pour jeunesse bi donc tey jii trophée bi nga xam ne gañ nga ko muy meilleur entrepreneur de l'année aussi tamit lan lan nga ci mën a wax waaw mais kontaan ci rek lii yëpp euh, daf euh, dafay nekk loo xam ne rek daf ñu yokk doole parce que xam nga waaw góor dafa neex euh, ngay liggéey ñu ne la vraiment jërëjëf wala waaw góor li ngay def baax na li may wax keroog Pape dama ko ne ñun dañu ñëw fekk suñu ay papa di liggéey suñu ay mag di liggéey di ñu liggéeyloo di ñu fay donc tey bu ñu demee ba am kàttanu liggéey tamit di di di liggéeyloo ñu ci loolu sant yàlla la donc ñu muy plaisir rek xam nga li ma lay wax gis nga trophée yi prix yi ñuy jox ah euh, daf daf ñuy motiver dafay dafay nekk loo xamante ni daf ñuy man man waxuma sax courage la ñuy jox ma dalay lay jëlee fii sànni la ndax doole bi mu lay jox pour nga gën a def leneen euh, dafa dafa doy waar donc lu lu doy waar la ci ci ci suñu liggéey voilà voilà autre chose mooy que tey jii suñ la nominé euh, bu waxee ne nominé nañ koo xam doomu Sénégal la donc ñun euh, li ñu wax mooy ñu jóg votel la donc mën nañ ne tey jii soo jëlee trophée bi ba sax trophée yi nga xam ne mosoon nga ko jël aussi mën nañ ne c'est grâce à vote nga xamante ne moom la la Sénégalais yi ak fans yi di voteel fans yooyu nga xamante ne saa boo demee fépp foo xam dem nga fa représenté li nga xamante ne mooy drapeau Sénégal dañuy topp di la voteel di la soutenir fans yi tam lan nga leen di wax mais dama li ma wax rek euh, euh, tey artiste bu bu mu mënti doon tey ñu nominé la nga jóge Sénégal ah Sénégal yëpp ay jóg ànd ak yow du man rek mais keneen ak keneen ku fi mën a jóge pour dem feneen ci beneen dëkk ànd euh, daje faak ay artistes Euh, di jongante Sénégal moom mooy jóg ndax lii euh, yëfu Sénégal la man su may jóg drapeau bi laay yóbbu mhm. kon tey Sénégal ñoom ñoo jóg voteel ma euh, saa su nekk rek saa yu may jóg rek dinaa leen yëg dinaa yëg ne sama waa dëkk ñu ngi ak man ñu ngi ànd ak man ñu ngi may bëgg ñu ngi may ñu ngi may support kon lu am solo la te loolu day tax man man it ma leen di gën a bégal di leen du ma di leen gën a bégal rek ndax ñoo ma fi teg tey nu ma mel rek ñoom la li may wax rek depuis jiin leen 99 euh, bi ma génnee sama album ba tey ñu ngi ànd ak man jàpp bàyyiwuñu lu ma génnee mu neex leen fu ma tëgg ñu ñëw fu ma fu ma amee jongante wala leneen lu xew ci man su ma amee naxar ñu am naxar su ma amee bànneex ñu am am bànneex kon nag euh, ñu mënuma leen fay dama leen di remercier encore sama fan si di gërëm waa Sénégal di gërëm Sénégal bu baax di leen wax ne rek li ci kanam moo daax lii ñëw incha allah moo daax alors Viviane ñu ngi lay nuyu di la féliciter ci ci trophée yi alors euh, lu ma bëgg a xam sama question bu njëkk mooy ndax euh, entertainment bi la joxoon trophée bi daaw même kii bi la même euh, structure bi la wala wala wala déet d'accord alors trophée bi trophée rek lay doon wala day ànd ak ay koppar daal maanaam. day ànd ak koppar. <laughs> koppar nag. da ànd ak koppar kay. ah, ah ndax buñ la joxe trophée dinañ dañ la jox ndàmpaay. Ah, waaw wala ah, ah loolu rek bu ñuy joxe secret bi du lenn lu liggéey. liggéey la rek ah. mais de mais mais ñàkk jëriñu ku liggéey rek am. Euh, te gis nga sunu borom bi lu mu bind ci doomu aadama. ala kulli àll daf koy am. kon tey man la tey suba sama beneen moromu artiste mën na ko am ñeneen ak ñeneen ya te yal nañ ko am te trophée yi maa ngi koy may sama nawle artistes yëpp di leen di leen ñaanal tamit euh, sunu borom bi ubbil leen ay bunt yoo xamante ne tamit euh, dinañ dinañ mën a am yeneen yu ko raw parce que ndam bi am Sénégal ñoo ko am Afrique ñoo moo dem jongante indi victoire ci njëkk laaj mooy avant tout jël xarit ñu jox la ci trophée nga bokkaloon kook sa doom ah bi ñu la wooyee na la Philippe xarit kat dañ la désigné nan la la def waaw xarit nag dafa nekk lu doy waar ah, ci man parce que dama ko woy sama doom euh, ñu teg ci tuuti ñu takk ko ah, clip bi ñëw rafet ñëpp bëgg ko. ñu tegal ma ci lii tamit meilleur euh, clip euh, ci xarit mu nekk loo xam ne rek lu dëggu la ndax lu jóge ci xol dafay dugg day dugg ci xol euh, ndax xarit dafa doy waar nag te bi ma koy woy sama xol laa ko tibbee nit ñi koy liggéey tamit seen xol lañ ko tëggee muy Jolof Band ñoom Pac ñi ko ñi doon tourné clip bi ci seen xol lañ ko tibbee mu nekk lu lu lu neex daal vraiment plaisir la liggéey hmm? initiative xarit fan la jógee parce que yàgg nga ak sa doom yàgg nga way boobu ba léegi xalaatoo mooy ko pourquoi moment bi nga jékki-jékki ne ah sama doom bi nag waa xam nga yëg-yëg la yëg-yëg la rek xam nga lu nekk rek dafa am euh, nan lañ nan laa koy waxee sax dafa am waxtu mhm. voilà te waxtu bi laa ko yëgoon Euh, ma woy ko waxtu bi mhm. voilà <laughs> te gis naa Sénégal yëpp niñ ko niñ ko jëlee yaay yi ak doom yi ñëpp ngi ci toog xam nga toog ku ci nekk bokk sa yaay ñi bokk seen xam nga seen waajur yi kontaan donc mu nekk lu lu neex quoi mais mm. lan ciy dem bu ci communiquer bu ci def soo ko fësal ñeneen ñi dañ koy def dañ koy fësal voté leen def leen mais yow doo def loolu. ah pourquoi du ko def xanaa yow nekkoo ci dëkk bi <laughs> non non non yow nekkoo ci dëkk bi kon non non non non non non ñun dañuy communiquer dinañ ko joxe dañ koy teg ba mu leer nañ ñëpp xawoon nañ ne dañuy dem. te euh, am na yeneen nag yeneen am na boo xam ne Nigéria la am na boo xam ne Cora Award la am na yu bëri yoo xam ne gars yi yàgg nañ ko teg ñu ngi koy gis donc te xale yaa ngi voté bu yàgg nag parce que Cora Award boo xoolee xale yi voté nañu ba ñu ñëw final donc du nekk loo xamante ni tey rek lañ ko lañ ko teg gars yi gis nañ ko bu yàgg. macha allah euh, moom au gis nga lii ah <laughs> ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan yeneen yeneen yeneen yu gën a mag ñëw waaw euh, leen raw de. Mhm. waaw mais jot na Viviane def ak duo ak ñëpp artistes yëp def ak Titi def ak Kumba Gawlo def ak Aïda Samba def ak ñëpp parce que musique loolu la partage la te euh, bu jotee la dañ koy def te xam naa léegi rek incha allah waaw ñun ñoo bokk musique bi dañ koy def. Viviane dans la musique africaine. on peut bien dire parce que bu ñu demee ba ba ba ba di la décorer ñaari ñaari trophées yi nga xam ne ay trophées africaines lañu venant des pays euh, de euh, fierté lay doon ci yow lan nga mën a dénk ñeen ñi nga xam ne ñooy ñi bëgg a jot euh, talent bi nga xam ne Viviane am na ko ci ci jamono ji tey. lan laa leen di dénk moom mooy liggéey gëm sa bopp am fulla am fayda ba pare xam fi nga bëgg a dem. musique bi dafa metti rawatina boo dee jigéen il faut nga gëm sa bopp bañ ku la yab xam fi nga egg fi nga bëgg a egg gëm ko rekk te bañ a tàyyi liggéey nag liggéey rek di liggéey di def lu bees di créer di liggéey musique loolu la di voyager ah voilà. eh eh, eh trophée yi nag moom moom ci trophée la ñuy wax. Tata Bibi Zero to fan la fan la inspiration.